ngir yàlla rek bàyyi ma parce que maa ngi bëggoon def le tout pour échapper mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pro parce man mosu man xaw ma góor xaw ma lii yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si la ma xëj xoj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ma laa tu me donnes envie de parce que lii mosuma ko woon xalaatee si jigéen yoo xamante ne dañuy lii nii dañuy maase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 ñu bari bari bañ yégee lii dañ ma wax ne kon mosuñoo xam ne Adji Sarr nga tudd ñun ay Sarr rekk lañ xam mu ñëw wax ma sama tur ñëw wax ma sama lépp ni ma dangay tëdd suuf def li ma bëgg ma dem sama yoon te foo mënti dugg ci àdduna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 loolu mu ngi nekkoon 2020. ba mu defee lu ma def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porter ma tamit. kenn du la gëm te ñëpp dañuy wax ne complot la sur man à nag yow yaay fay yow laay après yow yaay fay les pots cassés te yaakaar naa ne doo jël risque seen waakee di xam ne ci massage nga nekkoon bañ lay dévierge mu def lu muy def daal di génn ma teg ci cinq jours parce que mënatuma woon toog foofu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 parce que dañ doon def ay massage corps à corps dañ doon def massage deux pièces doon def lépp foofu noonu mu ne ma yooyu yëpp amatu fi massage corps à corps tuñu amatu fi deux pièces amatu fi yenn yi fi amoon yëpp amatu fi léegi tonifiant la ñuy def relaxant savonnage ak jacuzzi mun na ko jacuzzi bi mu ngi am ba léegi de ci jacuzzi bi des fois da ngay tase koo xamante ne dalay làmbatu nekk ci biir jacuzzi bi def tuñu di la làmbatu mun na mënoo ñëwal fii nii sax léegi weer laay fay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 ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci fay ne ma tu risques de tomber enceinte wala da nga sentiroon ne tu es enceinte wala affaire yooyu bu pare ma ne ko non non xaw ma parce que bëgguma woon joxe détail bu ba mu ne ma kon jëlal pour fekkee ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko hmm. mhm. mais def nañ ay prélèvement ci guddi gi. ba pare ba ma seexee ak moom ba pare. ban hôpital. bi nekk Grand Yoff. bi ngeen di mujjee seet fekk na nga ëmb ba pare wala. <laughs> je préfère garder loolu pour man. waa kii bu njëkk bi. lu tax jiitu woo ci police avant ngay njëkkee prélèvement Grand Yoff parce que da d'habitude procédure bi loolu la da dem ci yoon yoon yóbbu la ci euh, orienté la ver un hôpital.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 mosuma toog ak Ousmane sonk di ko wax lu jëm ci sama vie mosuñu toog sax di am ay yenn parole yoo xamante ne day jëm ci man day ñëw seex say kese la seexoon ak man bu fekkee ne mosul say ak moom na na jàpp ba set teg waat bu fekkee ne mosul seex ak man waxatuma sax viol bi wala mosul say ak man rek laay wax. ñaata nañ lu bari loo xamante ne mu ñëpp a ngi naan.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 il est prêt à tout te yaakaar naa ne wax na ko ci télé bi ñëpp dégg ko tollatuñu ci moment boo xamante ni dañuy nekk ci ginnaaw dañuy toll pour mën a joxe suñu te wax naa wax ne mën naa ko wax maa ko koy wax direct fi a gagné. mu mënta parce que lu mu déclaré biir këram la moom dafa déclaré ne ibaadu la biir këram alors que non moom lu mu bëgg a dund mënu ko dund ak ay jabaram lu mu lu dëkkaale biir këram ak moom lu mu doon c'est diamétralement opposé loolu woo ko sonaloon.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 ci femme yi ma demoon femme yi nga xamante ni ñoo ñoo doon lii nii femme yooyu ñoo ma ko proposé woon mais dama gisoon ne jaru ko. non est que jamono yi am na gynécologue bu lay suivre. non nga carnet prénatal. carnet prénatal comme. Euh, jigéen wóor këyit loolu duma duma si wax nee loolu duma si wax franchement. merci